Salam man Mangi Pape Moustapha Diallo ñu gën membre de la coordination nationale des écoles de football du Sénégal. Le ah, tournoi bi ñu organisé sur une but bien déterminée parce que dañu gis football au Sénégal surtout la petite catégorie amuñ ay championnat donc au niveau de Malika si lañ organiser affaire pour permettre les jeunes de un peu partout du Sénégal euh, par exemple Kermassar, Malika Yimbol, eux tous tournoi pour football organiser tournoi donc on a préféré cette catégorie parce que c'est tout juste euh, c'est les enfants de 2006 2007 euh, donc eux ils n'ont pas eu la chance peut-être d'accéder dans les clubs de première division ou deuxième division ou régional division inférieure donc on est obligé de les organiser des tournois comme ça pour que ñu mun a wane seen bopp donc équipe yu participer bari na am na am na yu dëkk Tivaouane Peulh ñaari ñetti équipe Tivaouane Peulh am na fa am na beneen école football bu nekk Kër Massar am na yeneen ñaari école football aussi nekk Kër Massar au niveau de Malika aussi ñetti école football yu fi nekk donc équipe yu bëri nañ sérieusement on s'est retrouvé avec 12 écoles de football. Donc 12 écoles de football, chaque samedi et dimanche, chaque week-end, nous jouons ici une catégorie U17 école football. Cela veut dire les minimes B. Donc nous avons joué là. Et puis c'est bien catégorisé. Donc si nous avons vu que nous avons de taille dépassée. Donc nous avons dit que nous avons le football. tamit bu amee yenn contact yi du am ay blessure du am dara la euh, formule bi moom championnat la parce que c'est la première édition championnat Nous avons ngi koy tournoi Atlético de Malika donc c'est la première édition. donc incha allah l' année aussi dinañ defaat bu mel nii gën ko gën ko yaatalaat juutaat ay yeneen participants. donc tournoi bi ñu ngi xaar lu bëree bëri si autorités surtout monsieur le maire bu Malika ak tous tous les autorités qui sont de gauche à droite ak ñi nga xam ne dañuy yëngu si football aussi bëgg nañ jàppale xale yi si football donc ñun dañ leen di ñaan ngir ñëw jàpp si lu mel nii. parce que football bu rafetee rek xale yi la commencé parce que balaa ñoo football waa ji moo mun a ba mu nekkee xale la munoon football. donc dafa ñëw rek répété lam doon def ba muy nekk xale moo tax ñu ñaan autorité yi di ñëw jàpp si parrain bi mooy euh, Alpha Diallo président AIC Pastef moom lañ parrainé première édition championnat tournoi atlético de Malika bii nii mooy Alpha Diallo président AIC Pastef bi nga xam ne ñun ñoo bokk ak moom terrain bi donc si terrain AIC Pastef la ñu organiser tournoi bi chaque année incha allah rabi fii lañ koy organiser. waaw li may jeexal rek di ñaan yàlla jàmm si réew mi Sénégal dox football bi dox di ñaan yàlla aussi gars yi wàcc si suuf terrain bi xool. école de football yi parce que am nañ ay xale yu mun a football mais amuñ chance amuñ chance pour accéder si yenn centre de formation yi parce que yombul pour booy yi di defi foofu noonu test donc moo tax ñuy ñaan autorités yi yeneen nit ñi yëpp képp ki nga xam ni responsable nga wala bëgg nga dimbale xale yi wala nga nekk recruteur ñëw si école football yi nga xool parce que produit yaa ngi fa mais amuñ ñu leen dimbale donc wàcc leen si base bi ngeen liggéey jàppalante école football yi pour Sénégal jëm kanam parce que école rek. pour réussir le Sénégal monde. donc nous aussi on travaille pour le Sénégal parce qu'on ne travaille pas pour Malika seulement on travaille pour le Sénégal donc on demande tout le monde de venir toucher de gauche à droite l'école école football pour appeler les yi